commission sociale bu Touba ca kanam ni mu ko baaxoo di defee saa su xew-xewu diine yu mel ni korité ak tabaski jege see waat na ab lim bu takku ci ay yére jébbal ko mbokki jullit yi nga xam ne ñoo ko yittewoo yooyu leen dimbal mi ngi ko doon jébbal ñi nga xam ne seen loxo jotul seen ginnaaw tey jii ci gaaw bi dëppoo ak ñaar fukki fan ak juróom ci weeru juillet atum 2020 ci quartier bii di Poulailler sëriñ Mourtala Mbacke mu sëriñ Abdou Fatah Falilou mi jiite commission sociale bu Touba ca kanam dellusiwaat na ci li sabab ndimbal lii wa athimu wa athimu al ba'is al faqir loolu la suñu borom digle loolu moo waral nag Touba Ca Kanam jaare ko ci commission bii di sociale ñu ne nañ jéem a jàppale suñu bokki taalibe yi ndax lépp lu ñuy def rek ci sunu la teg ba ci yëre yi nga xam ne moom la ñuy dajale ndax ku nekk xam na ne bis bi li ñu ci gën a sopp mooy nit ki sol yëre yi gën a rafet ci ay yëreem wala yére yi gën a yees ci ay yëreem moo waral nag comme ñëpp mënuñu ko ñu woo mbokki taalibe yëpp ñëpp jàpp ci ba fi mu toll nii li to li li ñu fi dajale ci ay yére yoo xam ne nii ñaw nañ ko ba paqueté ko ba mucc ayib toll na ci treize mille cent trente neuf pièces. mbuus yi nga xam ne moom lañ ko séddalee ndax léeg-léeg nga dem ci kër goo xam ne nii juróom-benn nit ñoo fay nekk léeg nga dem kër goo xam ne fukki nit dafay nekk mbuus yi dañ ko dañ koy calculer comme kër ga nam toll mbuus yëpp mi ngi toll ci deux mille trois cent cinquante li ñu fi dajale ci ay col yoo xam ne col yi soxna la te ñu mën ko suturloo ndax dëkk bi tamit dañ bàyyi xel ci ne dëkkub la col gi nga fiy sol dafa war a jot waaye tamit sëñ bi dafa soññee ci ñuy muuru col yi mi ngi toll ci cent cent trois cent dix-sept saag yi nga xam ne moom la jigéen yi yor mi ngi toll ci dix-neuf mbaxana yi mi ngi toll ci huit yére jigéen yi mi ngi toll ci douze mille deux cent quarante-six yére góor yi mi ngi toll ci trois cent quatre-vingt-deux yére xale yi mi ngi toll ci cinq cent onze dàll yi mi ngi toll ci cent quatre am na ci tiisi yoo xam ne dañ koo indi woon ñu séddale ko suñu bokki tailleur yi nga xam ne ñoo ngi ci dëkk bi ngir ñu jàppale ñu ci ñu ñawal ñu ko ñu ngi ciy profité di sant association tailleur yi nekk ci dëkk bi yëpp ak mboolem koo xam ne jëloon na ci yére yi nga xam ne jot nañ ko fee indi nga xam ne ñoom ñaw nañ ko ba noppi am na yu des nag mi ngi toll ci 100 pièces yi nga xam ne dañ koo ñëwagul nga xam ne ay tiisi la yoo xam ne ñëwaguñ ko nga xam ne képp ku ñuy jox loola mën a jàppale ci kër ga dañ ciy boole ab tiisi yére yooyu mi ngi toll ci environ 300 am na ay darab tamit am na ay rido am na ay cin am na ay madaar am na ay eau de javel am na ay ba ci sax ay indi am na fi ak ay am ñoo xam ne ay takkaay sax dañ ko joxewaale waale ndimbal lii yamul rek ci ay yére Serigne Mourtala Mbacke di ñu xamal ne boole nañ ci ay koppar yoo xam ne dina mën a jàppale bu baax ñi nga xam ne ñoom la ñuy jox ndimbal lii ngir ñu mën ci fàggu ay xar képp koo xam ne ni ñi ngi lay jox ndimbal ñi ci ëpp dañ ciy boole loo xam ne nii bu la mënta jëndal am xar mi nga xam ne moom ngay jaamoo yàlla tamit dana ci liñ jot a séddaleegun ci ay ndimbal yoo xam ne dana man a sori ci xar bi mi ngi toll ci douze millions cinq cent mille moom moom moom la toll liñ ko war a séddaleeg yooyu yëpp nag xam naa bokk yi nga xam ne ñoo doon def liggéey bi ku mel ne sëñ Bay Siise ak sëñ Baara Fall ak euh, bokk yi soxna day Jóob bokk yi ko àndal ñoom danañ leeral niñ ko war a defee incha allah. sëriñ Abibu Mbàkke mi nga xam ne moom mooy jëruñu Touba ca kanam ginnaaw bu mu loo jëf jilee yëkkati na ay kàddu cant ak ñaan jëmale ko ci képp koo xam ne si jàpp nga ci bile liggéey yi. jëf ji dara yi ci man lool rëy lool ndax dimbali ko néew doole fi mu fi ko lislaam teg ak fi ko sëñ Tuubaa tegoon te dëkk bii bi ko sëñ Tuubaa sanc dimbali lu ñekk tax mu sanc ko yaa maalikal mulki yaa man jàll an xaw di irham jami wara bu nga koy wax kenn fekk ko ci woon kon irham jami wara kenn ku ne ci ñun war nga jàpp ab car ci loola yëkkati ko mu bañ laal suuf te irham jami wara lii bokk na ci rek lii tax nit ñi gàddaay seen maam yi seen baay yi fekk sëriñ bi kon waa Tuubaa ci kanam bokki taalibe yi ñëpp bu ngeen jëf ju rëy ju ju ju ju ju am solo ji ngeen def te jëmi sëñ bi rek tax ngeen def ko ñi gàddaay seen i bokk fekk sëñ Tuubaa ngeen ngeen dimbalee leen ko sëñ Tuubaa rek am seen pay yàlla ma leen fayal man nañu wax ne Tuubaa ci kanam képp koo xam ne bokk ci lépp lu ma sëñ Tuubaa nar a jox na leen ko jox ba noppi loo ci am day na kon sëñ maa ngi sant wax di la gërëm yaay ñu ko ànd ñëpp xol na bu feesee tuur rek ndax moom day mel loo xam ne mënu ma ci dara waaye sama cant ci yéen la moo moo am tàmbali waaye amul jëm kay